mbokk yi dal leen ak jàmm ci rajo réew mi fm 97 point 5 ñoo ngi leen di nuyu di rafetlu ànd bi seen émission gox bi ci dibeer gi di dalal député maire Maana Seyni faati bu wandi fa fare ci mouvance présidentielle bi ñu ñor a wax ponk yi ñu war a waxtaane bëri na wàllu réalisation ca boobile sax localité jafe-jafe ci wàllum ndox électricité ak la xew ci jamono lëmbe Sénégal jamono ji di inondation wàllu politique élection locale yi ci atum 2022 mbokk yi lii lañ nar a waxtaane ak yeneen ponk ku fare ci kàddu gi Mass Thiam ci technique bi Adama Diallo monsieur le maire Seyni yi ñoo ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci rajo Rewmi FM 97.5. oui bonsoir. waaw ñoo ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci rajo Rewmi FM 97.5. oui bonsoir je je maa ngi leen euh, nuyu tamit. Mhm. di leen euh, di ñaan euh, vraiment. Mhm. yàlla subhaanahu wa taala may mhm. nañu fekkee nañu ren ci jàmm ak salaam. Mhm. ñaan ko. mu may ñu gudd fan. mbas bi nag ci Sénégal mu ci àdduna bi. mu ngi jaaxle ñëpp. mu ñaan yàlla subhaanahu wa taala dàq maa ngi tudd comme ni nga ko présenté. Mhm. maanaam Seyni Fati député maire de la commune de Médina Wandifa. Mhm. monsieur le maire ci waxtaan bi ñu bàyyi la nga présenté goxu Médina Wandifa fan la faree fii ci réewum Sénégal. waaw Médina Wandifa mu ngi ci euh, région de Sédhiou région de Sédhiou euh, euh, département de Bounkiling Médina Wandifa daan nañu ko woo croisement Diakhoumé croisement Diakhoumé nekk ci biir Casamance nekk benn interjection jonction de route. Mm-hmm. Euh, euh, des croisements, de Bignona, mm-hmm. Sédhiou et Kolda. Mm-hmm. donc euh, mooy Médina Wandifa ci région de Sédhiou. Mm-hmm. ñaata ñaata doomu aadama moo fa yeewoo. Euh, actuellement ni ñu ngi à seize mille euh, quatre cent environ habitants. Mm-hmm. depuis kañ nga nekk ci bopp localité bi. maa ngi ci bopp loxaat localité bi depuis le huit avril. deux mille neuf. ah deux mille neuf defagun nga ñaari mandat maa sama ñaareel mandat bi. dañ koy dooree waxtaan bi ak actualité muy inondation yi gis nañu taw yi wàcc fii ci réewum Sénégal rawat rawatina ci Dakar ak euh, banlieue bi ni ki démb sax njiital réew mi joxe na instruction ñu déclenché lii di plan Orsec taw yi wàcc fii ci Sénégal naka la def fële ca Medina Wandifa. waaw euh, xam nga euh, c'est comment encore monsieur c'est. Thiam monsieur Thiam. Mm-hmm. xam nga mbirum inondation mm-hmm. Sénégalais yi dañ ci war a dem ak ak tey. Mm-hmm. parce que mbirum inondation dafa bëri. te débat bi dafa bëri. waaye sëñ Thiam. Mm-hmm. depuis jamono Senghor. Mm-hmm. depuis Senghor. Mm-hmm. ñëw ba ci Abdou Diouf. ba ci Abdoulaye Wade ba tey yàlla may Macky muy président de la République des Sénégalais waaye góor gi ñii ñëpp kenn ku nekk am na lu mu def ci inondation waaye luy dëgg tey wër mooy inondation c'est une responsabilité partagée maanaam maanaam man mii Malang Seyni Fati ma bëgg a ma bëgg a am kër te bu may uti kër ba ma tàgg nguur gi mhm. ma bëgg am kër ma am ko ma tabax ko ma dëkk fa mhm. tey boobu buy inondé ma bëgg nguur gi jàppale ma dafa am fu ma ko war a teg mhm. waaye war naa ci ànd ak jaar ak teg mais wax bi débat bi dafay bëri dafay bëri dafay bëri ah, ah. Sénégalais nag ah ana responsabilité état bi dans tout ça ndax moom moo war a dem amal ay politique d'assainissement xam nga état dafay jouer rôle am parce que état loolu rek a def lancer un programme d'assainissement mettre les moyens à la disposition liggéey ko mhm. maintenant loolu liggéey boobu ñu ngi ci parewuñ ci mhm. entre temps bu amee inondation il faut que Sénégal yi tamit ñu comprendre que c'est des faits naturels mm, inondation mhm. mbir mu yàlla la tey mun na taw mu yendu taw mu fanaan taw président Macky Sall mënu ci tous et mhm. taw boobu kenn mënu ko baare. mais fekkee par exemple am na ay politique de planification maanaam balaa moo taw ñu amal ay réseau de canalisation mais ci wàllu yàlla kenn du ko planifier mais ci wàllu canalisation ak réseau de ci wàllu canalisation li ñu ci mën mooy programme Orsec baa ngi fii si kanam sénégalais yi mais mhm. on fait confiance à notre gouvernement mhm. mu ngi ci liggéey bu baax a baax a baax a baax li ci des mooy nañu yokk góorgóorlu ku nekk sénégalais bu ne am na rôle bu muy joué ci Sénégal donc ku nekk joué rôle boobu bu que pour que au moins inondation bi ñu dàq ko ba gën a sori Sénégal mm. parce que phénomène naturel milliards yi ñu ci yëkkati woon gis nañ ko ba léegi daanaka résultat yi si terrain bi gisaguñ ko ndax nege ni daaw la Kër saar amoon ndox bu bëri bañ def ko département ni ki ren sax daanaka na meloon rek la mer koppar yi la ñuy rek comme ñuy si téléphone. Mm-hmm, ma ni yi la ñuy laaj fan la jaar ndax xaalis milliards yi ñu ci yëkkati woon ni mu bëree woon ba léegi résultat yi gisaguñ ko. placé pour ma wax xaalis boobu fu mu jaar. Mhm. mais li am mooy gouvernement mu ngi liggéey liggéeyam ci ci Kër Massar ci projet bi. Mhm. donc ñoo xam daal il pense que xaalis bi am na fu mu jaar nañ ko lijjantee mais li wër te wër mooy le Sénégal le gouvernement est en train autour de ça. Mhm. nañu leen bàyyi ñu liggéey parce que moo am solo. Médina Wandifa ak nawet bi baax na inondation sonalu leen foofu. fii alhamdulilah ñu ngi yàlla bu baax a baax am yàqu. waaw naturellement. Mhm. justement ci lool sax la ñuy des euh, ci wàllu infrastructure ak euh, gis nañ askan ba yeewoo ca Medina Wandifa dañuy jànkonteel ay jafe-jafe ci wàllu ndox lool ban taxawaay nga si am en tant que maire boobu la localité. waa gis nga sëñ Thiam Medina Wandifa. Mhm. dafa nekk gox bu yàggul. Mhm. je pense que su ma juumul. borom dëkk bi muy Wandifa Bayo. mu ngi sànc dëkk bi en soixante trois. xam nga loolu yàggul. Hmm? Mm-hmm, yàggul mm-hmm. alors donc mais tey boo xoolee dëkk bi mm-hmm. Euh, li mu am comme potentialité mhm. ak li mu regorgé yëpp mhm. tax na jafe-jafe yi ngay wax ni yëpp bu mu mhm. ci manqué parce que à moins de soixante ans dëkk bi mu nga sanc en soixante trois tey mu am une popu une population à plus de seize mille habitants vraiment ñooñu boo xoolee dëkk boobu dafay avancé wu à pas de à pas à une vitesse extrêmement importante tey avant ndox ñu ngi koy dund parce que depuis jamono boobu la soixante trois boobu gis nga borom dëkk boobu bu muy sanc dëkk Diadio bu ñuy wax village natal mhm. natalam mhm. foofu la dëkk à sept kilomètres de Medina Wandipaté mhm. mais xam nga lu muy def pour pour pour pour mu sànc fii day pousse bërgë bërgë laa wax bërgë da koy bëral te fii à sept kilomètres moom ak jabaram yi ba ci Medina Wandifa c'est pour te dire un l'histoire de l'eau de Medina Wandifa ça ne pas aujourd'hui mais yan jéego ngeen ci def en tant yow mi diite bokk moomeel ñun jéego depuis 2009 je ne cesse pas euh, mairie yi def nañu adduction yi. Mhm. lépp loo xam daal mairie yi mun na accompagner population ci côté boobu def nañ ko. Mhm. le président de la république ñu ngi koy gërëm bu baax a baax. pas plus tard le conseil des ministres délocalisé. Mhm. bu mu defoon fi Sédhiou. il a donné instruction ñu tabax benn château d'eau te mm-hmm. def nañ ko. Mm-hmm. xëy na lu luñ ci yéen luñ ci seen loolu lañ ci amuloon. Mm-hmm. mais comme par exemple comme lan ngeen ci séntu woon te amoo leen ko. luñ ci seen luñ ci séntu woon mooy problème ndox mu jeex ci Médina Wandifa. mais malheureusement château bi dañ ko tabax. buñ ko tabaxee ba pare euh, voilà donc y a eu des des des ça ne donne pas comme niñ ko bëggoon. Mhm. donc loolu moo tax problème bi daf ci bëri euh, ba léegi président bi mu ngi koy téye bu baax baax parce que il n'a il se lâche jamais par rapport à ce problème là mhm. le ministre en charge de l'hydraulique mu ci bu baax a baax a baax ah. l'équipe municipale mhm. ñu ci bu baax a baax les autorités administratives ñu ngi ci accompagné bu baax a baax a baax kon donc je je crois que fermement que dana am bés boo xam ne daal ça va devenir un vieux souvenir pour les habitants de Médina Wandifa kon population mën a xaar ni ñaar jafe-jafe wàllum ndox dina comme ni ko junjee say doon souvenir. loolu ñu ngi koy ña ñu ngi ñaan yàlla mu nekk lu gaaw gaaw gaaw parce que lu am solo la lu ñu bëgg la. Mhm. mais en aucune manière je ne pas dire exactement mhm. jamono bi parce que loo xam daal ça date depuis 63 boobu man euh, je je n'étais Mhm. Euh, alors ah. donc. Mhm. donc tu ba léegi problème boobu la ñuy dund. Mhm. mais lépp loo xam ne daal ñun ñun dañ ci war def. ñu ngi koy def bu baax a baax. pas plus tard muy assemblée nationale mu amee occasion muy président de la république mu amee occasion. li ñu ci mën a def mooy ñaax gouvernement du Sénégal mu jàppale ñu. te ñooñu tamit li ñu mun ñu ngi koy def. léegi nag li ci mooy ñu gën a góorgóorlu population bi. autorités et tout le monde. Mm-hmm. ñu jàpp si ni que maintenant Wandifa c' pas pour monsieur maire c' pas pour président Macky mais c' pour les Sénégalais c' est pour la population de Médina Wandifa. Mm-hmm. ku nekk bàyyi sa waar incha allah on reviendra population bi dana nekk un vieux souvenir pour ñoom. Mm-hmm. loolu di jafe-jafe wàllum ndox wàllu électricité naka la Médina Wandifa toogee est ce courant bi am na fa wala sax courant bi fa amee est ce doy na. Euh, côté boobu a baax. parce que bi commune ba léegi. Mhm. je pense que li ma am extension wax ma amul beneen commune ku am si si région de Sédhiou waaye néew na. Mhm. parce que j'ai pas moins de man am moins de soixante kilomètres d' extension. Mhm. kon xam nga loolu sant yàlla. je remercie le gouvernement du Sénégal. de 2014 à nos jours lu ma defal ci extension vraiment président Macky Sall maa koy naan ja gàcce bëri na lool lool lool dama koy naan mu yokk nag surtout avec le projet de cent mille lampadaires ñu ngi koy xaar bu baax a baax a baax la population de Médina Wandifa mhm. mais quand même de à nos jours mhm. lu mu ci def ci expansion c'est à plus de kilomètres Mhm. kon loolu am solo la. Mhm. ça je tiens à le remercier mhm. la population de Médina Wandifa. ci wàllu électricité ci jumtukaay sànq junj nga ko ci ay kaddu nga ni tali daanaka sax taxu kaa demee noonu ndax taw bi da yàq ci wàllu jumtukaay naka la Médina Wandifa toogee ci wàllu tali bi dikk bi. waaw xam nga xam nga souvent comme li ma waxoon léegi nag. dëkk bu bees la. boo xam daal yàggul. donc li jëm ci wàllu. mais mais 1963 ba léegi mu ngi bëgg a yàgg nag. 63 ba léegi. gannaaw boo ñëwee Casamance dëkk yi nekk fii depuis 1800 lañu. Mm-hmm. <laughs> yaa ngi dégg. Mm-hmm. <laughs> am na dëkk yi dëkk nekk fii depuis 1800. Mm-hmm. boo koy gam-gamle ak dëkk yooyu daanaka yàggul. voilà kon su ma koy comparé par rapport à ñooñu 1800 ay 1900 1901 ay 1900. donc euh, mille loolu xam nga loolu c'est récent. c'est moins de 60 ans comme li ma la wax rek. le premier fils de Medoune Faye day né en 68. mu ngi fii mhm. mais loolu tamit euh, euh, loolu tamit lu am la mhm. parce que euh, c'est un village village la te mu am statut commune mhm. statut commune boobu tax na tali yooyu li ñu ci mën a def mooy on a introduit dans au sein du conseil municipal un plan d'urbanisation plan traiteur d'urbanisation plan traiteur d'urbanisation boobu ñuy xaar état du Sénégal xam naa ni dinañ pour que au moins que lépp loo xam daal canalisation lay urbanisation lay dans la commune ñu defal ñu ko accompagner le conseil mu am benn plan d'urbanisation benn plan de d'urbanisation boo xam daal vraiment ça va euh, refléter à la réalité du Sénégal. Mhm. yow député nga maire nga defe liggéey bi wala sax pour nga jàllale information bi du am jafe-jafe ndax à chaque fois boo amee possibilité bi à l'Assemblée nationale est-ce que yaa ngi yeggee jafe-jafe askanu Médina Wandy fa ca biir ca Assemblée nationale. waaw loolu moom maa ngi ci sant yàlla bu baax a baax comme ginnaaw yàlla may saa su préoccupation euh, commune bi wala département hors même du du département de Bounkiling de la région du Sénégal. Mm-hmm. nous sommes un député nous sommes des députés du peuple. Mm-hmm. donc war na xotuma nag euh, nga nekk député maire. Hmm. donc euh, tu as l'obligation de défendre souvent tes intérêts de la de ta collectivité. Hmm. donc euh, loolu moom xam naa ni c'est le minimum je ne peux pas être maire alors je vois les problèmes de ma commune alors que je suis en face de moi un ministre a en charge ce hmm. secteur là damay profité ci occasion bi wax ko samay problème du ci àndee tamit mu réaliser ko et voilà ñu jàll ci kanam Mhm. comme par exemple yan jafe-jafe nga mos a yeggee fële ci assemblée nationale yu nga xam ni euh, askan wi ñoo ngi koy jànkoonteel te indi nañ ci saafara. tey tey comme li ma la wax rek tey li ma li nekk sama doléance fondamentale ci assemblée te maa ngi koy jooytu. Mhm. mooy euh, promoville bi. Mhm. loolu chaque fois sama promoville sama problème fondamental la. mais je sais que le ministre il est trop sensible. te mu ngi ci liggéey. ak euh, son équipe. mmh. mais également mm-hmm. euh, pays dans le cadre toujours des infrastructures mm-hmm. comme li ma Euh, c'est un une commune bi nekk ci qui regorge beaucoup de beaucoup de potentialité mmh. en termes d'infrastructure mhm. la gare qui est là c'est une gare euh, euh, sous-régionale ci mhm. boo xam dafa nekk digante Gambie Sénégal mhm. diggante Medina Wandifa Bissau Guinée Conakry Kolda Ziguinchor Sédhiou ces régions là tout ça là donc cette gare routière boobu tamit ñu ngi ciy liggéey bu baax a pour que l'État du Sénégal jël ko en charge defal ñu une gare routière moderne et digne de son nom. Mm-hmm. loolu tamit am nañ ci yaakaar bu baax baax. Mm-hmm. le ministre en charge de ces infrastructures là. Mm-hmm. a pris bonne note. et on est en train de travailler pour que loolu yëpp vraiment nekk n'est-ce pas un vieux souvenir. des populations de Médina Wandifa et que cette gare routière là un jour viendra. ci wolof vraiment. Hmm? ci wolof français yi. moo euh, gaaru ker boobu. am bés boo xam te daal. vraiment sénégalais yi gis ni que. vraiment gaaru ker bu bu voilà euh, gis nañ 2009 euh, junj nga ko say kàddu nga toog ci boobile localité ba ci atum 2021 gis nañ sax seen ñaareelu mandat bi daanaka sax dépassé nga ko 12 euh, ans nga nekk ci localité Médina Wandifa lan nga ñu mën a teg suñu loxo ci wàllu réalisation ba nga toogee ci boppu localité bi ba léegi. waaw sant yàlla bu baax a baax. Hmm. parce que bu dee bilan mooy fal nit moom. Hmm. am ñu luñ ci luñ ci ragal. Médina Wandifa macha allah liggéey nañ ci 2009 ba parce que ñun bu ñuy ñëwee en 2009 le village était vraiment la commune était un statut de village. Mhm. dara amuloon fi. Mhm. mais tey pour nga xam ne que dëkk bi avancé na 2009 ba tey da ngay ñëw mi na woon fa nga gis ko nga gis réalité yi yow mii sa bopp. ñi mhm. ngay xam ne que effectivement euh, euh, euh, dëkk bi avancé na. te réalisation bi en terme d' ñu ci bu baax a baax baax ba tey. Euh, comme par exemple xam nga da nga da nga waxee ni réalisation yu bëri na comme par exemple nga mën a wax teg sa loxo nga ni am nga am nga léegi bu tuddee naa la gare bi mhm. mais gare bi da ngaa ni daanaka sax da ci nax ngeen def gaaru Kër bi par exemple dama la waxoon gaaru Kër moderne mhm. mais boo xoolee maintenant man di fa gaaru bi fu mu nekkoon mu ngi woon ci centre ville bi mhm. ñu jëlee ko foofu conseil municipal bi mairie moo ko jëlee ci centre ville bi mhm. yóbbu ko ci euh, nouveau site bi tabax ko mu ngi foofu actuellement tey lu ñu bëgg rek mu gën a moderniser wu mais au moins tey fu mu nekk Sénégalais yëpp xam nañu ni que maintenant woon fa am na gaaru di ñu de son nom dañu bëgg mu conforté ci infrastructure yi boo ñëwee tey ci marché central Medina Wandifa da ngay kontaan par rapport avant 2009 lu mu mhm. meloon. Mhm. da kontaan. Mhm. boo jógee foofu boo demee ci mairie de Medina Wandifa 2009 boo xoolee ci région de Sédhiou. Mhm. depuis l'acte trois comment dirais-je depuis événement euh, communalisation yi euh, mhm. communes yu bëri ñu ngi location ba léegi mais ñun ñu sant yàlla tey mhm. on a suñu mairie en exercice peut-être que incident bi amoon ni que à partir du mois de mars moo tax mais sinon c'est une mairie bien construite bien équipée on se plaint pas de 2009 euh. 2021 ñaari réalisation yooyu kese nga def ci boobu la localité muy marché central bi ak euh, gare bi nga junj sànq loolu est-ce néewul ci wàllu liggéey bi. non ñu ngi ci wax naa la fii sax léegi ni sànq. Mhm. ci réalisation yi avant loolu ci wàllu assainissement yi. Mhm. au moins di jëm ci wàllu adduction d'eau. Mhm. def nañu def nañu adduction d'eau ay ay ay des dizaines de kilomètres. wax naa la fii sànq lu toll presque soixante kilomètres d'extension d'électricité. bi ñuy ñëw fii. courant bi presque benn axe la nekk mooy réalisation ci national bi ak régional bi moins de deux kilomètres mais tey mhm. boo dem mel na woon fa nga fekk fa courant Mhm. boo jógee foofu lu jëm ci wàll cimetière yi on a eu à travailler là on a eu à euh, des écoles on a eu à des salles de classe mhm. on a eu à construire des écoles mhm. donc euh, la liste elle est elle est elle est exhaustive mais ci wàllu jàng ak jàngale muy éducation bi Médina Wandifa naka tolluwaay bi ne fi ci wàllu école primaire yi secondaire yi ba ci ci wàllu lycée yi fan la toll mais foofu tamit ñu ci sant yàlla bu baax baax Médina Wandifa vraiment euh, population éducation. Mm-hmm. école yi jàngalekat yi ñu ngi jàngale xale yi bu baax a baax parce que bo xoolee résultats yi macha allah ren vraiment. am mm-hmm. surtout ci école lycée CM. Mm-hmm. même exemple entrain en CEP. vraiment résultats yi satisfaisant la ñu am vraiment sant yàlla bu baax a baax a baax. Mhm, mais ci wa wàllu école yi laa bëgg a wax maanaam euh, ñaata établissement moo fa am est ce que euh, askan ba fa yeewoo école ya fa nekk doy na leen. wàll wàllu école yi. Mhm. maanaam askan ba fa yeewo école yi fa nekk est ce que doy na leen. am nga am nga doy moom ak je pense que doy nañu ah école yi fa nekk actuellement benn école la ñuy lijjante mooy benn benn suñu amee beneen euh, beneen deuxième CEM. Mhm. beneen deuxième école collège loolu mun na tane. Mhm. parce que gis nañ ni que ci école lycée bi am na pléthorique. Mhm. mais quand même euh, école élémentaire yi pour l' instant moom euh, je pense que doy na. Mhm. doy na kendu du ne doy na parce que voilà bu ñu amee dinañ ko jël ah bu ñu amee dinañ ko jël mais au moins que ñi fi nekk. Euh, mën nañ leen consommer mën nañ leen utiliser en attendant. ci at yi ñëw quoi. ci wàllu école bi ba tey daanaka junj nga ko askan ba fa yeewoo jafe-jafe ci wàllu dañ fa seetlu coow bu fa amoon ci wàllu suuf bu fekkee permettre nga ñu yëkkati ko ci wàllu lotissement bu fa amoon ci diggante population bi ak boobile localité loole lan information ngañ si dolli. li li li li ma li ma ci wax ci ci lool rek euh, ma jàpp ni que boobu xëy na am na ñu am jot di ci waxtaan. Mm-hmm. te voilà te man jamono bi taluma lool wax dëgg fa yàlla Assane Thiam. Mm-hmm. voilà donc euh, ñoom xam nañu seen dossier bi fu mu toll. nañ ko mm-hmm. lijjante. Mm-hmm. mais am na ñu la ci joxoñ baaraamu tuuma. yàlla xam na ni c'est ça aw seen jot. ñoom. daanaka amoo benn tontu boo si mën a indi. aw benn tontu bu ma leen si mën a jox. sama addu ci leneen comme que nanguwoo ci yëkkati ay ay kàddu ci boobile localité ba 2009 ba 2021 mu nekk daanaka 12 ans nga nekk ci boobile localité est-ce que bilan bi mën nañu wax bilan bu satisfaisant la. man de man de je bilan bi population de na Wane Fa mooy apprécier. Mhm. du man mi maay apprécier sax mais population de Médina Wane Fa ñuy nekk fii di fanaan fii di yeewu fii ñoom ñuy apprécier seen bilan maire bi ci 12 ans. Mhm. ma mhm. jàpp ni la mais ci sama xalaat ak sama yaakaar. Mhm. bilan bu satisfaisant lañ fi am. Mhm. sëñ Thiam. ak li nga fa jot def ci liggéey lépp ci atum 2009 ba 2021. 2009 ba 2021 waaw. jàpp nga ni daal li nga jot liggéey boo laajaatee baato askan wi mën nga toogaat ci boobu boobi lay localité. waaw ci kattanu yàlla kay xam naa ne su ma laaj seen baat mun naa ci togg encore. Mhm. am naa ci yaakaar. Mhm. yi Medina Wandifa gis nañu maire yu bëri faree fii ci Sénégal ñoom dañuy am ay jafe-jafe ngir am ay e, koppar ngir mën a doxal seen i liggéey budget maire e, Medina Wandifa fan la toll. budget maire bi. Mhm. muy toll cest à maanaam ci wàllu xaalis. waaw. nga am nga am nga am nga maire yi moom budget boo nee budget. Euh, le budget est prohibitif. Mm-hmm. xam nga loolu les gens ils font ils font confusion souvent à chaque fois. Mm-hmm. bon mais euh, n'empêche pas ñun chaque fois. Mm-hmm. Euh, dañuy établir budget boo xam on va à la conquête de ces fonds dañuy dem ut boobu. bu ñu ko amee ñu fonctionner bu investissement. donc ça tourne entre. Euh, Euh, deux cent cent cinquante millions à deux cent cinquante millions. Mm -hmm. donc euh, foofu lay tourner. Mm-hmm. Hmm? ça c'est aussi un budget primitif. Mm-hmm. maintenant euh, boo buggee xam la réalité exécutive c'est le compte administratif qui mm-hmm. atteste le réel du budget. le compte de gestion. là là mais quand tu parles de budget le budget peut aller jusqu'à millions une commune comme Médina Wandifa on peut faire un budget voilà hein, euh, ambitieux mais mm-hmm. en réalité ce qui est important dans la loo xam daal am na solo ci liggéey gox yi mm-hmm. surtout en termes budgétaires mm-hmm. mooy le compte de gestion le compte administratif maanaam le réel parce que euh, différence bi par exemple boo ko jëlee ci diggante mairie ak département mooy différence bi. mairie da ngay xalaat ni que atum deux mille vingt et un wala atum deux mille vingt deux. Mhm. mun nañ am lii mun nañ am lii mun nañ am lii mun nañ am lii buñ ko amee. Mhm. lii ak lii ak lii mun nañ ko def. Mhm. yéen COP boo ko. vas-y léegi nag boo ko amulee. tu es obligé euh, li nga li nga am nga contenté wu ci loolu. maintenant maintenant koppar yi ngeen am est-ce que doy na leen ak liggéey yi ngeen sumb yëpp ngeen est-ce que dina ko mate budget budget du Sénégal sax les quatre mille milliards du Sénégal sax mm, euh, doyuñu. Mhm. <laughs> commune am deux cent huit millions <laughs> donc pour dire que mm-hmm. euh, bu ñu amee mille milliards sax mën nañ ko dugal ci Médina Wandifa te du ñu daal est-ce a ngi def par exemple ay démarches wut ay partenariat di fi euh, di wuti partenariat parce que euh, pas plus tard deux mille vingt am nañu ay partenaires yu nekk Espagne mm-hmm. donc Espagne Mm-hmm. Espagne ci ville bu ñuy wax euh, Santander. Mm-hmm. donc ñooñu c' est vraiment c' est ay jàmbaar lañu ñooñu mayoon sax jamono yële passé deux bus. deux mm-hmm. bus euh, très confort. donc euh, ñu indi ko pour les populations de Wandifa malheureusement avec les émeutes du mars. bis yooyu yëpp euh, voilà yàqu nañu tey n'existe plus. Mhm, loolu sax dinañ ci ñëw ci biir waxtaan bi ci manifestation yi amoon ci mois de mars gis nañ dañoo yàqoon sax boobile seen maire ak seeni i jumtukaay dinañ ci ñëw si kanam ci biir waxtaan bi ba tey ci localité maire Medina Wandifa junj naa ko sànq si samay kàddu. ma ni maire yu bëri dañuy jànkonteel ay jafe-jafe fu ñuy jëlee maanaam ay koppar est-ce que Médina Wandifa am na ay entreprise yoo nga xam ne daal mën ngeen fa amee ay impôt ay taxe pour ngeen a mën a doxal seen liggéey c'est-à-dire mais Médina Wandifa est-ce que am na ay bërëb yi nga xam ne dañ fay liggéey entreprise yoo xam ne dañuy mën di fay ay impôt yoo xamante ni day dem ci maire bi maire bi mën see jëlee ay xaalis yu mën si defa seen i liggéey seen i activité waaw mais loolu am na parce que fii ci Médina Wandifa au moins euh, ñun euh, le euh, le mal c'est que ñu amuñu géej amuñu forêt. Mhm. fii liñ fi am mooy les activités commerciales. Mhm. transport lañ ci am. Mhm. donc activité commerciale station yi la donc euh, xëy na ci ñooñu la ñuy yaakaar bu ñuy faye seen taxe seen impôt mun na tax euh, tuuti euh, recette municipale bi mun na évoluer tuuti. ak yeneen activité commerce boo xam te daal c'est quotidien. Mmh. Tous les jours ñu ngi ciy dund euh, gare routière bi euh, donc euh, mais sinon de grandes entreprises comme yeneen communes yu am ay grandes entreprises. Mhm. donc ñun malheureusement amuñu chance boobu pour l'instant. Mhm. mais bon ñu ngi parce que maintenant li fa commune la boo xam ne daal vraiment c'est c'est aussi euh, pour dire vrai. Mhm. la commune peut avoir la chance d'avoir Mhm. des grandes entreprises. Euh, kon ñàkk entreprise yi am ca boobile localité mën na indi jeexintal ci seeni seen wàllu liggéey. Euh, effectivement effectivement parce que entreprise yi pour wax dëgg vrai ça ils aident les communes. Mhm. parce que seen taxes yi mun na tax loolu kese commune bi fonctionné wu normalement. Mhm. donc commune bu toll ni mel na Wandifa bu amul taxes yi mel noonu pour mu gérer fonctionnement bi yeneen investissement bi day jëfe. donc euh, da ngay compter seulement euh, la appui de l' état il faut que état bi defal la lii pour nga mën a def lii. Mhm. voilà. Euh, gis nañu mairie yu bëri dañuy de lëngoo ak état bu Sénégal ngir mën a amal seen liggéey Médina Wandifa est-ce que état bu Sénégal mu ngi fay def ay investissement yoo xamante ni yu mag la. waaw Euh, pour wax la sëñ Thiam si on va dire vrai l'état du Sénégal est en train de faire un travail extraordinaire dans toutes les communes du Sénégal mm-hmm. tey commune boo gis investissement bu muy def mm-hmm. soixante pour cent ci investissement yëpp bu muy def mm-hmm. état moo ko ciy jàppale parce que dañu ne compétence transférée maanaam bu ñu ne éducation construction de salle de classe état jox la douze salles de classe pour nga tabax ñu jox la ay un fonds pour ça c'est vrai yooyu commune yooyu ay Mhm. mais xaalis bi ça ne sont pas tes recettes mhm. c'est l'argent de l'État qui est viré dans tes comptes mhm. donc moo bu la ñuy wax compétence transférée donc tey c'est c'est un, un, un ensemble de, de systèmes qui travaillent pour les Sénégalais Mmh. Donc euh, c'est un démembrement du gouvernement de l'État central. Mmh. Donc la collectivité c'est comme ça qu'elle fonctionne aussi. C'est pourquoi il faudrait que Sénégalais ñu xam ni que c'est une question de complémentarité. État bu ñu waxee état mooy gouvernement. mooy sénégalais euh, euh, lu muy def collectivité locale euh, ànd ci donc c'est c'est c'est c'est pour les sénégalais c'est pour les populations du Sénégal. Mhm. sànq juñu waxtaanee woon nañ ko mooy événement mois de mars yi gis nañ manifestation dafa amoon ci Sénégal yëpp rawatina ca Medina Wandifa ba daanaka maire bi dañ ko yàqoon ak seen équipement yëpp ngeen ñàkk ko jamono ji naka ngeen def ba jubbanti li waaw xam nga xam nga comme li ma waxoon sànq rek. Mhm. am na yeneen situation yi du ma ciy parce que moi je crois à mon à pays je mhm. crois à ma constitution je crois mhm. à mon à mon Sénégal donc euh, c'est un événement qui a eu lieu ci mois de mars mu am ay incident il a que mairie bi y a que donc euh, la situation elle est dépendante euh, à la justice donc je pense que les coupables en tout cas ils seront interpellés un jour. mais ci wàllu mairie bi est-ce que la fa yàqu woon yëpp defaraat ngeen ko. ah mais eh, ñu ñu ñu ñu ngi xaar bu dee am nañ possibilité defar ko nañ koy defar. Mhm. mais de toutes les façons on a essayé de faire le mini le service minimum pour que voilà liggéey bi mun a bañ a taxaw. Mhm. lépp loo xam daal mairie mun na ko def mun koy def. Mhm. pour que liggéey bi a continuer. population yi gis seen bopp ci lu ñuy def parce Mhm. on peut bloquer tout le Sénégal mhm. ci wàllu état civil yi ba amul ay jafe-jafe ci xale yi waroon def examen foofu laa la bëggoon wax ni sax ma ne si on peut buñ dee defuñu woon effort pour que ñu reprendre service au niveau de la mairie aujourd'hui à Médina Wandifa on peut bloquer tout le Sénégal parce que mhm. imaginez que si l'état civil ne marchait pas alors que aujourd'hui on est dans une phase électorale boo xam ne daal euh, tous les Sénégalais sont à l'égale dignité Mm-hmm. donc euh, on peut bloquer un processus mm-hmm. mais yàlla dimbal nañu ak euh, suñu président de la république qui est vraiment compréhensible à son équipe son gouvernement le ministre en tutelle on a mm-hmm. tout pour reprendre les services les services marchent très bien normalement et puis voilà et en attendant maintenant d'avoir d'autres moyens de, de, de faire complètement le, la, mairie am projet bi ngeen euh, lancé woon jumul muy projet d'appui à l'insertion des jeunes ruraux foofu ci Médina Wandifa transformation des zones ruraux fële ca Médina Wandifa si je ne me trompe fan la euh, ab projet bi askan ba fay euh, lancé woon xool naka la ñuy def ba ndaw ñi am euh, lii di xëy ci wàllu xëy mi sax foofee nan la fa tëddee mais concernant wàllu liggéey ndaw ñi seetlu nañ ni ñàkkum xëy dafa am fii ci Sénégal ñàkkum xëy hmm. ñàkkum xëy ça mm-hmm. mais rawatina Médina Wandifa askan bi ndax population bi est-ce que am te ñàkkum xëy mm-hmm. man damay remercier gouvernement du Sénégal l'état du Sénégal dama koy wax ma bambaat ko encore mm-hmm. tey Médina Wandifa boo ñëwee ci mairie dans le cadre du recrutement xëy ndaw yi on n'a pas moins de cent ñuy liggéey Mmh. Là aussi, je remercie à travers euh, euh, ce, ce, ce, en tout cas cette émission mmh. pour dire au directeur général, l'administrateur de FERA, mm-hmm. Mohamed a recruté jëlee na ay ndaw yu Médina Wane Fall ñu ngi liggéey dans le cadre de l' assainissement dans le cadre de l' mhm. euh, de sable dans les rues mhm. donc loolu yëpp euh, am solo la mhm. c'est-à-dire que il faut que nit ñi ni que c' pas facile y a seize dire plus de seize millions de Sénégalais qui sont là tous les jours ku nekk bëgg a bëgg a xëy ku nekk bëgg a am fu donc euh, mais on comprend aussi on comprend les gens on a l'obligation de le dire chaque jour Mm-hmm. mais yombul noonu tamit ah. Mm-hmm. la mairie lu ñuy def ci wàllum xëy l'état du Sénégal lu mu nekk di def ci wàllum xëy. Mm-hmm. ñu ngi koy def tous les jours. s'il y a possibilité de donner l'emploi à tous les Sénégalais. le président Macky il l'aurait pu faire parce que président la boo xam daal am na yërmande bëgg na askan bi. bëgg na population bi donc il n'a pas à ne pas le faire il n'a aucun intérêt à ne pas faire mais nañu def ndànk-ndànk rek yëpp dana sotti incha allah. Euh, gis nañ euh, honorable député Mala seeni faati maire bu Médina Wandifa fa ci fàttali yeneen ci émission gox bi ci rajo réew mi FM 97.5 ginnaaw ñeenti waxtu ba mu feggee fanweeri simili ak ñeent Médina Wandifa dafa signé woon ak contrat ak Fonds d'entretien routier autonome ñeel xool naka la ñuy def ba ay ressources mën a fi euh, entretenir route yi ak exploitation réseau routier yi euh, boobi la sax projet daanaka recruter ngeen lu toll si ñaar fukki ndaw fan ngeen toll ci yëf yi. na ëpp na ñaar fukki ndaw. Mhm, mhm. waaw parce que ren ren ren on e on est presque cinquante quarante neuf agents bu ñu recruté. Mhm. ak quarante presque cinquante agents. ak mairie bi bo boppam lu mu recruté. donc euh, vraiment on est dans l'ordre de quatre vingt dix huit agents aujourd'hui à la mairie de Médina Wandifa. projet bi bàyyi ko ba ngeen ko lancé ba ah. léegi est-ce que résultat yi c'est satisfaisant. Eh, résultat yi boo ñëwee benn wante faa moo tax ma ne la man du ma def benn bilan benn wante faa population mooy def seen bilan bopp. Mhm, mais boo ñëwee benn wante faa bu ñu la tegee añ ci mbedd ba da lekk sax. Mhm. mais ci say gë. ma ni ma en tant que maire bi yow naka nga ko gisee résultat yi. mais résultat yi satisfaisant sant yàlla gërëm président de la république. Mm-hmm. góorgóorlu ci lu mu nekk. Mm-hmm. mu ngi jàppale Sénégal yi yàlla na la taxawal ko rek. Mm-hmm. loolu kese la. parce mu ngi liggéey mu ngi liggéey Sénégal mu ngi jàppale commune yi mu ngi jàppale ñëpp mu ngi jàppale population bi. dañ ko jàppale gunge ko ci lu muy def. mais dañu dañu dañu dañu ñu ñu Mhm. waaw ci rajo yi ci télé yi ñu bàyyi président bu liggéey ñu lay sénégalais yi ñu comprendre loolu bu ñu comprendre loolu rek ñoom ñëpp dem liggéey c'est bien mhm, mhm. loolu la bëgg président Macky Sall loolu la bëgg te mooy loolu mooy loolu nañu liggéey nañu nañu liggéey c'est bien monsieur Thiam ba ah, tey addu ci wàllu politique mooy élection local yi ci atum euh, deux mille vingt deux lañ ko jàpp seetlu nañ ñu jàpp nañ ko daal di reporter jàppat ko daal koy reporté waat ci élection yi nag jàpp nañ ko ci atum 2022 ministre de l'intérieur sax niki démb wala sax avant woote woon na ñuy yëngu ci wàllu politique xool waa question question bi mooy koppar yi ñu war a teg sax ngir nga mën a bokk ci élection locale waaye juboo nag amu si ñu bëri daal ñeneen liñ ci war a laaj dafa bëri en tant que maire yow ci wàllu question bi ban taxawaay nga si am. Mhm. gis nga loolu laa waxoon léegi nii il faut que sénégalais ñu Mm-hmm. élection report yi report yi report yi kan moo ko reporté. Mm-hmm. ñenn ñoo ko reporté. ah. kan moo ko reporté Sénégalais ñoo bëgg élection ñu reporté leen. le président n'a pas le choix. Sénégalais ñoo ne na président reporté élection yi. ndax lan ndax pour ñoom fichier bi on doit revoir le fichier électoral. Mm-hmm. et pour revoir le fichier électoral il faut de repousser les élections mm-hmm. ñu indi ay experts yoo xam daal ñoom ñoom la ñuy wóolu pour que ñu xool fichier bi président mm-hmm. ne leen bismillah mu defal leen loolu ñu génn ci loolu tamit ah donc euh, diggante bi mbas bi ñëw tout ça tout ça là tout ça là mais aujourd'hui alhamdulilah les gens euh, Euh, on a compris que qu'il pleut ou neige, les élections se tiendront le janvier. Mhm. donc tey bu ñu naan lonk ci caution bi moom dañuy wax li leen rek loolu mënu tax élection bañ a amaate le 23 janvier fii. Mhm. mais dafa tàmbalee jur coow ci élection yi laataa ñu ko jot seetlu nañ sax révision liste électorale rek dafa jur coow fii ci Dakar ndax Cheikh Gueye ñu ngi génn ñi certificat de résidence yi ni ñu koy joxee daanaka jaarul yoon te Medina Wandifa liste électorale yi bañ ko ibbee ba léegi lan mooy situation bi sur wala askan wi ñu ngi dem di bindu wala ñu bëgg a soppi fi ñu war a demee voté est-ce que foofu lan mooy situation bi si place foofu. fii daal ci biir Ndawandi fa lu jëm ci révision moom ñu ngi sant bu baax a baax xam naa ni. Mhm. c'est les premiers euh, jours. Mmh. Que voilà, euh, les gens de certificat de résidence euh, ne tient problème. Mmh. Mais heureusement pour nous, parce que nga euh, nit ki dama ne toujours lu jëm ci wàllu compétition. Mm-hmm. da ngay da ngay kun nga teg compétition wala nga nga pare ko nga toog mm-hmm. bàyyi ñu pare ñu dem compétition. Mm-hmm. certificat de résidence mënul tere kenn gagné élection. Sénégalais nga. tu es habitant de Médina Wandifa. tu es résident tu es résident de Médina de vous empêcher mhm. nga bañ a am certificat de résidence mhm. boobu bépp commune la ci Sénégal boo fa demee foofu nga dëkk mhm. nga commencé aussi sa délégué de quartier ñu jox la certificat domicile. boo demee ci mairie ba service municipal yi dina jox certificat de résidence. waaw alors mairie la jox certificat de résidence. alors lan mooy expliquer kon coow li jamono ji. mais xam nga xam nga euh, boo nekkee xam nga Sénégalais surtout en matière politique. opposition amul lu gàtt en mhm. réalité. Mhm. c'est ça leur argument leur mhm. am. lu ñuy wax ci rajo il faut ñu am ñoo xam ci télé mais en réalité où est le problème. yow kii kii sénégalais il est sénégalais comme toi comme le maire. il est sénégalais comme le maire qui délivre les certificats de résidence. mais je vais je vais me présenter auprès de lui monsieur le maire je suis venu chercher un document. il a l'obligation d'établir ce document-là mu jox ma ko. il a mm-hmm. l'obligation mm-hmm. parce que c'est son droit moom en tant que sénégalais. Mm-hmm. certificat de résidence pour ce son citoyen. certificat vas uh-huh. man certificat de résidence sax moo jur coow ñi ni maire yi ñoo ko war a joxe ñi di officier de l'état yi ñoo ko war a joxe kon kan moo war a joxe boobu la kayit. bon xam nga xam nga les textes sont clairs. dañ ci Mm-hmm. fii Sénégalais dañuy bëri wax rek mais les textes sont clairs. Mm-hmm. dañu ne. Mm-hmm. certificat de résidence même en France c'est l'autorité locale c'est le maire qui délivre le certificat de résidence. maintenant l'autorité administrative mooy le préfet le sous-préfet. mun na mun na jox certificat de résidence. au a une carence notoire. Mhm. mais si vous avez compris. Mhm. lan mooy carence notoire. Mhm. maanaam bu ñu seetlu ni que am na benn yi boo xam te daal. maire bi dafay bañ ci wàllu intérêt crypto personnel wala wàllu intérêt politique. du délibéré document yoo xam daal document yooyu mooy certificat de résidence. loolu tamit su des bases bi war a nekk sur bojo bojo ni ñuy defee nii préfet bi nangam su préfet bi nangam. su préfet yi préfet yi souvent ñoom. xëy na euh, opposition bi seen bruit bi moo leen euh, xataloo souvent. mais mhm. en réalité enquête bu war a approfondir comme loolu mhm. maire bi bañ na joxe certificat de résidence mhm. enquête boobu la ñu waroon topp ba mu leer nañ ne effectivement le maire a refusé dafa mhm. bañ délivrer au certificat résident pour des intérêts mhm. que ñu moom xam na ko mhm. en ce moment mun nañu wax carence et bu ñu waxee carence l'autorité qui est là qui représente l'état central peut valablement délivrer un certificat de résidence mais amul loolu militant yu sénégalais soo ko fale rek c'est un politicien moo sous-préfet mu ne ko monsieur le préfet man sama gars yi duñu leen nangu joxee suuf nangam nangam donc euh, préfet sub fale rek parce que il a son bureau SOMBIC mu bindal ko benn certificat de résidence demal. Mhm. loolu euh, intubation de fonction la bu ñu ko nar a def bu Sénégal warul dox ne noonu. Mhm. on doit respecter ku nekk ni nga moom ñu jox la ko sa gëdd ñu jox la ko. Mhm. loolu ça doit je pense que à l'avenir euh, euh, euh, ça dans l'acte 3 on va revoir ces toutes ces incohérences là. Mmh. pour que Sénégalais ñëpp ku nekk nekk ci vraiment dans ses droits et dans ses devoirs de façon cohérente et que kenn du sonal kenn ci lu muy def. élection yi kat li ci des daanaka bëriwul muy juróomi weer képp waaye maire yi génn kat di def sorti ni ci wàllu certificat de résidence yi dafa tàmbalee jur coow que ñoom tamit bu gisee loo xamante ni ëlëm nañ seen bopp amuñ droit génn daal di koy ñaawlu. dégg ma euh, par exemple élection euh, locale yi li ci des daanaka bëriwul juróomi weer képp moo si des. te sorti yi ci maire yi fare ci kujje gi dafa tàmbalee bëri ndax daa am lu leen ëlëm ci wàllu certificat de résidence yi est-ce que buñ génnee def daal di ñu xool naka la ñi def ba jooyandi lii di mel laata élection yi loolee gënul. pour ñu génnee certificat de résidence hmm, coow coow li alerte yi ñu ci def ñu xool naka la ñuy def ba indi ci wàllu jooyandi lii di mel balaa élection yi ñëw mu bañ a jur coow. par exemple Cheikh Gueye gi def na benn sortie yox coowul ci wàllu certificat de résidence yi laata loolu moom mairie mairie maire de Dakar jëppal Derkale laata loolu laata loolu Barthélémy mi maire maire Mousse Dakar Sacré-Cœur ak euh, Pala Samb jiite Fann Point E waaw mhm. mais maire lu ñu wax mooy dëgg mhm. wax mhm. muy Barthélémy muy Bamba Fall muy keneen muy man muy keneen. Mhm. maire bi dafa am sàrt ñoo tax bu ñu nee Sénégalais yi sur vingt millions vingt mille Sénégalais nga nekk seen kanam maire nga nekk seen kanam jiit. Mhm. parce que statut moo la constitution ak loi yi ñoo tax. ci mhm. vingt mille personnes nga nekk man ci seize mille personnes ma nekk foofu njiit pendant douze ans. loi moo ma ko permettre. kon loi boobu nañu Sénégal yi nañ ko respecté. gënu mën a nekk. Euh, euh, euh, l'homme le plus bien moo tax ma nekk ko non non non. Mhm. c'est les lois de ce pays là qui ont fait que man ma nekk maire de Médina Wandifa moo tax Cheikh Bamba Fall nekk maire ci Médina moo tax Barthélemy nekk maire Dieuppeul Mm-hmm. donc il faudrait que loi boobu Sénégal respecté ko. Mm-hmm. loo xam ne daal euh, comment dire Bamba Fall prérogative la mu def ko ba mu ba mu ko war loolu c'est mm-hmm. pas de connotation politique c'est son statut de maire qui lui permet de faire ça nañ ko respecté. maintenant celui qui n'est pas maire ou qui pense que koo xam daal da nga yaakaar ni que Bamba Fall lu muy def neexu la. tu as des voix. tu as des ngay jaar pour que au moins bu dee Bamba Fall tamit mu ngi def loo xam daal waru ko def. Euh, mu arrêté ko. ba tey. Uh-huh. ba tey. Uh-huh, vas-y nekk wax rajo bi rek mm-hmm. ba tey ci wàllu politique euh, député maire Mara Seyni Fati élection yi des que euh, opposition bi ñoom ñu ngi jéem a nas ay pexe xool naka la ñuy def ba daan leen ci élection locale yi ñu dëgmal am euh, gis nañ ñu annoncé ab coalition ci diggante Ousmane Sonko xalifa Euh, Sall ak ñeneen muy coalition bu mag euh, xool naka la ñuy def ba jéem a xool naka lay ba am ndam ci élection locale yi ñoom seen pexe yooyu ñu nas yéen naka ngeen di def ba daal di koy mën a contourner mën a am ndam ci élection locale yi. Mhm. xam nga élection présidentielle la ñu jógee. Mhm. président Macky Sall ñu fal ko à plus de cinquante huit pour cent. waaw lu muy am ci élection yi. lu muy am ci élection locale yi. Mhm. taux bu muy am. doo ko kenn. Mm-hmm. Sénégalais yi dañu bëgg a Macky Sall dañ ko gëm. Mm-hmm. Sénégalais yi dañu gëm Macky ci kaw lan ci lu muy def ci Sénégal. Mm-hmm. ci lu muy def ci pour les Sénégalais. loolu quel que soit combinaison bu opposition nar a def. xooluñu ko Sénégalais yi xam nañu seen bopp xam nañu ko ñu teg seen tànk kenn du leen nax kenn mënul du leen nax. loolu lu am solo la il faut que nit ñi noté ko. il faut que nit ñi noté ko. quel que soit coalition bu ñuy bu ñuy teg combinaison bu ñuy pas du sérieux. Il n'y aura jamais sérieux parce que le président a ses hommes qui sont sur le terrain, qui travaillent pour le Sénégal, pour les Sénégalais et pour les Sénégalais. Mmh. Et loolu c'est extrêmement important. Maintenant, euh, euh, opposition euh, la question fondamentale, il n'y a qu'à s'organiser et mhm. Bi élection locale. Mhm. kii nekk ci Pastef wala nekk ci beneen parti léegi nañ nañ organiser rek parce que fii am solo mooy actuellement pour nekk maire au Sénégal c'est les Sénégalais qui vont choisir leur maire ce n'est plus comme auparavant mhm. que je viens avec une mallette d'argent ma dugg ci benn conseil municipal ku nekk ma jox un million wala deux millions ñu fal ma rek après ma génne. loolu am tout Sénégal président Macky Sall dindi na ko. léegi suffrage direct la suffrage direct la. Mhm. il voudrait que li fi am mu nekk lu Mm-hmm. te loolu mooy am. Sénégalais ñooy fal seen maire. Mm-hmm. Sénégalais ñooy fal seen maire ah. Sénégalais plus comme auparavant. Sénégalais yi non non mm, Sénégalais yi ñooy fal seen maire ba opposition bi def coalition bu mag boobu la sax coalition gis nañu Ousmane Sonko moom taxawaay bu mu si am ndax élection présidentielle yi mu génn. gis nga mm-hmm. opposition. baax na lool. parce que lépp ci boppam man mii keneen keneen dañuy jógee opposition ñëw nekk. pouvoir euh, parti au pouvoir sa ça c'est ça la règle politique mhm. mais li am solo mooy tey mhm. contexte bi ñu nekk nii mooy contexte local mhm. par exemple bu ma bëgguma tudd sax ci sama intervention yi mais par exemple ci mel ni Pastef koo xam daal aujourd'hui il a une bonne position dans il a une bonne position jël position bu baax ci wàllu euh, euh, politique ci Sénégal tu prends une ville boo xam daal Pastef moo fa gagné léegi nag yeneen opposition yi fa nag bu dee ils sont cohérents dañu war a nangu waa Pastef jiitu liste boobu. Mhm. ça en discussion. Mhm. bu ñu bëggee xeex régime bi. nañu mhm. lool. doo ko gis fenn. parce que bu ma jëlee exemple ci ban commune la base Pastef moo ko gagné. Euh, euh, bu dee Pastef moo ko gagné la commune par exemple chez moi ici. à côté de moi moo fa gagné. léegi nag nañu accepté wu maire bi nekk foofu parce que liste moo fa def. PDS demul léegi na mais tu diras jamais ça. Mhm. léegi waa ne Pastef tamit ñoom tamit dañu bëgg moins avoir des mhm. moo tax du yomb noonu comme ngeen ngeen ko foogee seen jàmm. Mhm. ci gis nañ ko euh, euh, coalition ku gi ñoo ngi nas ay pexe pour coalition naka noonu gouvernement bu Sénégal seen seen coalition bi muy benn bokk yaakaar mais seetlu gi moo di ak waxtaan daa mel ni amagul ndax fu waay jógee fële rek daal di déclarer candidature am loolu est-ce que du indi gàllankoor ci boobile coalition. kër bu mag la. xam mm-hmm. nga kër bu mag. Mm-hmm. yombul gérer. Mm-hmm. mais je crois une chose. Macky Sall dana gérer këram ba mu set huit. loolu la fi tànn na élection locale yi. président de la république. muy président de la coalition. dana ko gérer ba mu set huit. ku yu fale woo bëgg naa ku a fale c' est des ambitions c' est normal. mais au finish réalité bi mooy mujj. loolu c' est c' est c' est politique a kale bëgg a li nga bëgg Mais la réalité du terrain fera qu'on fera des choix objectifs et ces choix-là nous amèneront vers la victoire. est que waroon leen amal ay waxtaan laata kenn ku jël daggee ca làng gi rek nii day déclarer candidature am. waaye est-ce que waroo leen am préalable bi maanaam ngeen waxtaan désigner ñi ñooy candidat localité bi candidat bi la loolu est-ce que gënul. lu ma par exemple su ma joxee benn exemple comme Bunkiri. Mhm. Mhm. nous euh, le le président sortant. Mm-hmm. man mii député ànduma ak moom. Mm-hmm. te opposition bi dans le département man ak la. Mm-hmm. dafa mel sa turandoo la sax. mais par exemple une une unité de de de responsable maanaam maire yi coordonnateur yi ñoom ñëpp àndal ñu ne. tey la ñu tànn mooy nekk suñu candidat. le président de la le république Macky il a l'obligation kooku koo xam daal responsable yëpp moom la ñu joxoon. Mhm. kooku la kooku la ñu bëgg ñu tànn ko. bu mhm. tànn ko defal leen candidat. Mhm. maintenant nag le président le président sortant il est libre. soit il il va il va changer euh, ce qu'il veut mais en aucune manière les quatorze communes du département de Bounkiling par exemple ñoom ñëpp dañu ne diw lañ bëgg kon diw boobu le président il tel que je connais le président de la République il respecte tous les Sénégalais. alors là il il a il a il a je sais qu'il va choisir le candidat là pour que pour mu rejoindre majorité bi. Mhm. bu ma comprendre say kàddu ba ni maanaam ñooy yeewoo ca boobule localité ñooy tànn laata président Macky Sall di si indi benn. bala sax ci par exemple ñooñu dañu tànn déjà seen candidat ñun on n'a pas problème ah. ak Bounkiling si. amuñu benn problème. Mhm. quatorze communes yi maires yi yëpp dajee tànn suñu candidat. Mhm. qui qui n'est pas du candidat sortant du soit mhm. il maintient le président sortant. Mhm. ou soit il choisit notre candidat. Mhm. ca Medina. Uh-huh, vas bu dee yow la lan def. <laughs> delloo naa la laaj bi ci place delloo naa la laaj bi. ah ma ni delloo naa la laaj bi. non dama lay laaj ma laaj bi. man maay laaj yow yaay tontu moo tax. <laughs> <laughs> Uh-huh. a a en fait Medina Wandifa ci wàllu politique yan adversaire uh, ñoo fa nekk fii uh-huh. bépp adversaire xam nga Medina Wandifa dañ naan sànq jël mu wax bi uh-huh. Medina Wandifa croisement Ndiarmé la croisement la bon centre la bépp adversaire politique bu nekk Ndakaaru parti politique boobu mu ngi Medina Wandifa bi waaw Euh, est-ce que yooyu la parti par exemple mën nañ la indil euh, gàllankoor ci élection locale yi ci atum deux mille vingt deux. bon xam nga élection moom élection la. Mm-hmm. man dama ne de toutes les je respecte tous les partis politiques. Mm-hmm. je respecte tous les opposants mm-hmm. en aucune manière j'ai une démarche politique je ah. reste serein dans ça. Mm-hmm. waaw logique boobu dama ci dem see nekk. Mm-hmm. mais bépp parti politique mu nekk Dakar muy Pastef woo muy leneen woo muy leneen woo mm-hmm. uh, na rawatina nag rawatina nag. ci biir bi. deux groupes la. waaw ba ba amul par exemple ñu nekkee ci mouvance euh, présidentielle bi bëgg a jël boobi la localité te yéen a bokk même coalition bi bëgg a jël boobi la localité alors que yéen a bokk même euh, coalition bi voilà gox boo dem rek loolu moo looloo ci ne boo ñëwee ci benn wàllukaay ñu bugg ñu bokk ci mouvance présidentielle ci boppam. Mhm. ñoo ñoo ñoo ñoo gën a nekk opposition au <laughs> loolu moom euh, loolu moom doy na waar de voilà voilà loolu loolu mooy inconvénient nag mhm. te yéen yéen a bokk même coalition bi ñu bëgg la wuutu ci boobu la localité voilà mais xam nga élection locale tamit c'est une question euh, euh, locale comme ni ñu ko waxee rek mhm. waaw c'est une question locale mhm. élection locale c'est une question locale comme ni nga ko. c'est une question locale c'est parce que par exemple kii mën na nekk ci mouvance présidentielle dans une collectivité locale alors élection locale ñëw ñoom ñëpp ñu bañ a ñu bañ a suivre le maire ah ils sont pas obligés ñu topp ma. mais mun nañu def yeneen pexe ñu dem yeneen liste yi. Mm-hmm. suba bu ñu gagné toujours dans le parti ah. waaw. c'est une question locale ku da ngay da ngay nas da ngay nas sa bopp sa poids fu mu toll. Mhm. waaw loolu c'est c'est c'est c'est pas un problème pour moi. Mhm. mën na c'est c'est ay. da leen invité rek sur le terrain rek ñu dem sur le terrain mhm. kaddu mën nañ see comprendre ni daanaka noppi nga pour laajaat euh, bopp mairie Médina Wandifa. ñu ñetteelu ci ñetteelu man laaj man sax. population bi moo moo moo moo ma ne du ma bàyyi. Mhm. ci nga amal ñetteelu mandat. pour amaat ñetteelu mandat population bi dañ ma wan baax ci boppam ñoo ma ne. Mhm. monsieur dem fenn da ngay mandat bi ñu jox la. Mhm. waaw laa ma kontaan ci loolu parce que voilà. Euh, confiance la yal na yàlla motal yéene yi. Mala Seyni Fati nekk député maire est-ce que ñaari liggéey yi yomb na. waaw yomb na comme yombul. Mhm. yomb na comme yombul parce que boo demee ci parlement tamit euh, liggéey bu takk moo ci ne. Mhm. donc euh, il faut que nga organiser wu pour que nga mën a foole ñaar liggéey yëpp. Mhm. Euh, mais alhamdulilah ñu ngi koy def nànk-nànk. seetlu nañ maire yi nekk ci localité yi faree ci biir réew mi ñoom daanaka li ñuy toog seen gox bëriwul est-ce que c'est le cas avec vous. waaw man de am man de may sant yàlla bu baax baax parce que man bu ma jógee mel na woon di fa une semaine sa dafa mel nii dañ may piqûre pour ma dellu quoi. Mhm. damaa bëgg lool mel na woon ci tënk rek euh, daanaka li des ci émission bi bëriwul addu ci wàllu Covid 19 te mu lëmbee àdduna rawatina Sénégal lan mooy tolluwaayu feebar bi ci Medina Wandifa. waaw fii tamit ñu sant yàlla baax baax ci loolu parce que dañuy am benn en tout cas euh, population a te hmm. yàlla sutura yàlla tamit mu ngi hmm. donc mbas bi Casamance yëpp la taxul noonu comme euh, lu ñu foogoon. Hmm. mais euh, suñu système médical tamit euh, ñoom dañuy góorgóorlu bu baax baax. ci wàllu sensibilisation. voilà donc loolu yëpp baax na. ñu ciy sant yàlla bu baax a baax di Mala Seyni Fati di la jaajëfal euh, ci émission gox bi di la doon dalal ci rajo Rewmi FM 97 point 5 di la bàyyi nga tàggatoo. waaw di leen remercier bu baax a baax. Mhm. Euh, di naan euh, waa Rewmi FM maa ngi leen remercier bu baax xam naa ne émission bi yàgg na lool su ma su ma su dul sama programme bi damay ñëw ba ci. station ba. Mhm. Euh, moom a gën woon mais dama amoon benn contretemps parce que moo tax ma ñëw Casamance. sinon mhm. je vais venir jusqu'au niveau de la rajo. Mhm. def foofu émission yi. parce que sama yaay je dis que Fatou sama yaay la parce que sama yaay baaba la. donc euh, donc euh, vraiment. te moom papa moo sant dëkk bi ah. xaw ma coïncidence la mais moom xam na baaba baaba dañ koy naan baayoo. baaba du baaba nekk mu dindi baaba mu def faatu baayu faal. Mhm, mhm, ah baaba amatul léegi boo ñëwee ci état civil. Mhm. doo am baaba parce que baaba c'est pas masculin c'est pas féminin. ah donc euh, vraiment maa ngi koy gërëm bu baax baax taxoon na bu baax a baax a baax pour que émission bi mu am. nekk vraiment euh, kontaan naa ci loolu loolu moo tax bëgg ma ko def suba ren. dama amoon réunion tey Sédhiou fa laa nekkoon mais j'ai tout fait pour venir. ma satisfaire ko li li solo la wax la. Mm-hmm. te ma xam ni que vraiment kontaan naa lool lool lool. Mm-hmm. Euh, maa ngi koy nuyu euh, di nuyu patron station bi di nuyu ñëpp. Mm-hmm. di leen gërëm di leen sant di leen naan vraiment en tout cas à la prochaine fois. jërëjëf Malang Seyni Fati di député maire ca Médina Wandifa fare ci mouvance présidentielle bi émission gox bi moom la doon dalal ki fare ci kàddu gi Mass Thiam ci xarale gi Adama Diallo ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen jox dig daje dibéer bi ñu dëgmal